الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala di jël di sëlmal ci rantam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi seede ni amul benn buur bu nu war a jaam jaamu ko di jëriñ ñàkk koo jaamu li la ku dul allah subhanahu wa taala di seede ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la ndaw yàlla la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci seen njub ba ilaa yawmi saa suñu borom subhanahu wa taala mu ngi dénk ci alquranul karim fi mu wax ak ñun mu ne eey yéen ñi nga xamante ni yéenay ndigal maa ngi leen di dénk ngeen ragal seen boroom ragal leen ittaqullaha xaqa tuqaatihi dëgg-dëgg ragal borom bi ne rikk nag bu leen dellu ci man mukk lu mooy da ngeen a jébbal seen bopp seen borom yàlla bu ñuy dellu ci suñu borom subhanahu wa taala fekk ñu fees dell ak taqwa muy ragal yàlla mbokk yi koor gi dem na jaamu yàlla bi ñuy wax koor ramadan dem na waaye jaamu yàlla jeexul li ko taxoon na ñëw mun koor mooy mu jëmbat ci ñun ragal yàlla yàlla na sax ci ñun mu ànd ak jëfe ba keroog gan gi li ñu fi fekkaat yàlla ñu bokk ci xaaj bi nga xamante ni yàlla moo ngi leen di goreel biir safara mbokk yi koor googu de mooy li nga xamante ni ñëwoon na fi xirtal jaam ñëpp ci jaamu yàlla góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñépp di xirtul ci yoonu islaam di dem ci jàkka yi muy fees dell di yéenante lu baax di ci dox di ci wax koor googu noonu loolu ko taxoon na ñëw waaye bu ñu ne ba dem loolu la wax ne na ngeen ko sàmm ba ban di ñëwaat ndax loolu mooy lii jeexantal ci ni def na liggéeyam moom koor yàlla yàlla tegal ci siraatul mustaqim koor googu nag bu ñëwee ba dem ba tey am na loo xamante ni war nañ ko ci jàngate dund ko suñu biir dundee ko ci àdduna bi muy ñaan yi ñuy wax assalaamu wal ximaaya mooy jàmm ak sécurité koor googu ñu génn mbokk yi nee nañu pour ñu am ñaar yi jàmm am sécurité faw ñu sukkandiku ci ñaar yi nga xamante ni li tax borom bi subhanahu wa taala wàccee ñu kaw suuf dañoo wàccee ba ngir ñu jaamu ko mu ne nag ngeen jaamu ngeen jaamu moom fii ngeen di jaar muy fi mu waxee ñun mooy ñu sukkandiku ci alquranul karim bi nga xam ne mooy suñu constitution yàlla wàcceel ñu nag ab yonent bi nga xamante ni moom la ñuy wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam munuñu kii di muhammad mooy si yéen seen royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ngir ñan li man kaana yarju llah wal yawm al axir képp ku ak yaakaar tasanteeg man ëllëg ma fay la na nga roy ci waa waa jii nii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla déggaloo yàlla ni wàl ni wa in tutiuhu tahtadu Muhammad mii de su ngeen ko toppee rek di ngeen jub yàlla nañu yàlla jubal mbokk yi diine googu noonu kenn amu ci dara ku dul yàlla képp ku jàpp ne am nga ci cër déggoo sa diine lépp loo ciy wax ak a def yàlla rek lay doon borom bi subhanahu wa taala dafa joxoon ki mu yónni woon ci ñun muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka yow Muhammad laa tahdi man ahbabta nekkul yow yaay jubal ku la neex walakin allaha yahdi man yasha yàlla moom mooy jubal nit ñi yàlla newaat ni moom mooy al muqallibal qulub yàlla mooy kiy wëlbati xol yi yàlla yàlla wëlbati suñu xol yi teg ko ci siraatal mustaqim ba keroog ñu koy wuy di kon lii di alquran ak sunnay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bëggee am alximaaya ñu sécurité ak jàmm ci foofu la ñuy jaar waaye tamit pour ñu am boobu sécurité ñii di jigéenu islaam dañ cee am cër ndax ñoom marta bi bu gën a kawe da leen yàlla teg place bi gën a riche da leen yàlla teg mooy kër bi uuf loo leen njaboot gi sàmm loo leen njaboot gi seen éducation ci tarbiya diini ya jàngal leen tamit lii de civisme yar leen ci sàmmaale borom seen borom borom këram ak alalam ñooñu noonu nag islam dafa am melokaan bu mu leen melloo te ñoom bokk na ci ñi nga xamante ni mën nañoo yee fitna moo tax borom subhaanahu wa taala utal leen place utal leen yére yi ñu war a sol loolu soxna su nekk su nekk biir kër wala borom kër bu ci am njaboot bu jigéen nee na faw nga sàmmanteeg yi ngir nga bañ a yee fitna ci dëkk bi waaye ngir ñu am tamit ximaaya ak jàmm jooju noonu foog ñu jël xale yi ndaw ñi teg leen ci nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala moo wax nañ leen fa teg doom kado la yàlla moo ñu ko jox jox la ko xañ ko sa moroom ba mu koy dogal fekke woo moo tax ba mu la ko joxee daf ne la lii ma la jox kado la te kado mbokk yi kun ko ci jox sa kër booy dem fa gën a ñoŋe fa ngay teg kado bi chaque instant yaa ngi koy fomp ndax lan dafa précieux ci yow amul lenn lu gën a précieux nag doomu aadama yàlla dénk la ko ba mu la ko dénkee nag waxu la ne loolu neex nga def ko yàlla def nii man maa la ko jox waaye tegal na ko fii ma la wax nga tegal na ko fi ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra yàlla du dal du jóge ci moom fekk nga tax lenn lenn lenn loo xam te ne ak ñaawteef la mën na su ma la ko dénkee fexeel ba nga teg ko ci yoon bi nga xamante ni boo ko ci tegee di ngeen am sécurité di ngeen am jàmm yal nañu yàlla tegal suñu njaboot bi ci yoon boobu noonu waaye tamit ngir ñu am sécurité mbokk yi am jàmm foofu ñun ñëpp ñu bokk benn pas-pas mooy tawxiidullah te moom la ñu génnee ci koor yi kenn ku nekk fi mu nekk mën ngaa jonjoon rek sa morom ndax yaa ngi féex féex ci jaamu yàlla te féex ci jaamu yàlla leen du ko def lu dul ruux gu sell ruux googu noonu sell na ci jamono jii lii la ci islam soxla bennoo ci quartier yi ci dëkk bi ci àdduna bi ñoom ñëpp ñu bokkandoo di wax kalima bi ñu doon wax sànq muy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ñu koy wax muy sax si suñu biir xol waaye suñuy cër tamit di ko def bu ko defee loolu day jur xemaaye suñu biir jur bëggante suñu biir ngir jàmmoo suñu biir aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi waxda wa salaatu wa salaamu ala man la nabiya baada muhammad ibnu abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi suñu taxawaayu ñaareel ba tey ci jàmm ak sécurité lay wax suñu réew mi di Sénégal dafa am lu ñu doon te li ñu doon dañuy ñaanal te nañ ko doon ne muy suñu mag ñi yal na leen yàlla fayal ñoo fi jëmbat jàmm ba tey ñu tala toog nii di jàmm yàlla kii tudd Muhammad kee tudd Ibrahim kee tudd Saalih kee tudd ku nekk turu juddi bi rafet la ci ngàllaama ñoom waaye nag loolu ñu doon ci ñoom muy alquran ak sunna kilifa fu ku nekk ca pénc ba nga doon def ba nga ba nga sampoon ci ñaari tànk yooyu nga doon doxe moo tax mu jur tey sécurité bi ak jàmm bi suñu dëkk bi murid sunni xaadir sunni la tijaan sunni la laayeen sunni lañ ñoom ñëpp sunni yuun lañ te nañ ko doon ne ci tànk yooyu lañ doon doxee rafiqi kitaabullah wal mustafan nabi sama àndandoo ci kaw suuf kenn ci mag ñi ma ko waxoon te ñoom ñëpp ñoo bokkoon benn pas-pas nee na sama àndandoo mooy kitaabullah mooy allah subhanahu wa taala lim ñu bëgg a wax ni lépp lu ñu war a doxee ci kaw suuf foofu la ñu ko waxee ci alquran fu ñu jëm la ñuy xaar ci ñaari kër yëpp la ci yàlla namm yëpp ci alquran la ñu ko waxee moo tax mu ne sama tànk bii kitaabullah la beneen tànk bi Mustafa nabi ndax moom ma firi li nga xam ne mooy alquran al karim yàlla ci yàlla dégloo loolu lañ ñu bàyyi ñoom jëm ñun nag loolu nan lañ ko mën a téye ngir ñu mën a continuer suñu sécurité ak suñu jàmm bi ci njëkk wax naa ko sànq ñun ñi dëkkee dëkk bi ñun ñoo koy defar te mun ñu ko defar lu dul dañoo sukkandiku ci ñaari tànk yi mu alquran ak sunna yéeneen da jàmm suñu biir tàmbalee ko ci biir kër gi borom kër gi alayhi salaatu wasalaam daana dénk way juri góor yi papa yi di dénk di leen dénk ci soxna yi maa ngi leen di dénk soxna yi maa ngi leen di dénk soxna yi bokk na ci kàddu yu mujjee wax sax ba ñu jàppoon ne sax fase dafa xaraam ndax li mu la doon dénkee na ngeen moytandiku ak yi nga xam ne moo dox seen diggante ak seen soxna kon ci biir kër gi lay tàmbalee law ci njaboot bi ñu leen di xirtal ci jaamu yàlla xirtal leen ci civisme mbokk yi mbokk yi gis nga xale yi tey jii nii li leen manqué éducation civique et édu- éducation morale ci la bokk xale bi nga yónni bu njëkk boo mësaan gis xale ne ko jëndal ma cigarette danaa la duma la cigarette dañ ma ko tere mag mu mësaan gis xale ñu yónni ko cigarette mu romb la dangay woo ba nga ñëw mu ne la damm ko nga damm ko mu jox la ndox dama indi fee ndox nga indi ndox mu la raxasul nga raxasul pour wan na leen li ngay laal nii baaxul loolu bu ñu ko continué est-ce que kenn dina dem bay dux drogue ba dem ba egg ci sachet kon mbir mi ci biir kër gi lay tàmbalee yow nga woo sa doom ba mu ñëw nga ne ko mbalit may de demal nga sànni ko fële ne boo ko jàngaloon civisme danaa la yaay fee oto mbalit nañ xaar ba mu ñëw ñu dem tuuri ko fa ndax bu ñu ko tegee fee am na ay xaj yu fi fréquenté temps yi loolu noonu ñoo ko fiy indi mën nañ fi indi danger suñu kii danger lay jur insécurité lay jur loolu civisme moo ko manqué yàlla nañu yàlla dégg loolu loolu noonu waaye tamit ngir ñu am jàmm foofu suñu état bi delluwaat ci ni gis nga allah subhanahu wa taala mooy maalikul mulk yàlla ay borom nguur tuutil mulka man tasha wallaay boo toogee ci nguur fàtte ni ki la fa teg mooy yàlla te am na keneen ku fi tegoon nekkatu fi mu ngi ci biir suuf war nga delluwaat sa xel bu dee nit nga tuutil mulka man tasha mooy jox nguur ku ko neex gis nga bu demee ba nguur gi jeex bu kenn dem vote ji yàlla ne bu kenn vote jiwul man maa koy faat xanaa doo may nguur gi jeex wa illa nee na dañuy ñëw sànni ko ay carte ak mooy boo mën a am da ngay wàcc ndax yàlla moo la fa teg waaye bu yàlla ne da ngay continuer bu ñëpp mànkoo woon ni doo dem dangay dem ndax yàlla mooy almalikul mulk te tuuti mulka man tasha su demee bu koy dindi nag nga bañ mu ne tanzi'u dama koy foqati ndax xamootoo ni woon man maa la fa teg dama koy foqati nguur googu noonu boo ci toogee nee na na nga acte ci maandu al adl gis nga mbokk yi kii nekkoon xali awutu xalifatu rasul sallallahu alayhi wa sallam muy abu bakrin bi muy toog ci xilaafa gi daa bañoon xam noonu nañ lan moo nekk ci masuudiyee boobu noonu dañoo bañ Omar daal di ñëw ak ñeneen ñoom Ousmane waxtaan def musaawara ne ko yow yaa topp ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ngay ànd ak moom xale ngeen boobu yàlla yónni woo ko woon sax te duñ ko yónnee yaa ko njëkk a gëm te ñu bëree bëree bëri ci saxaaba yi bi ñuy dugg ci islam ci loxoy Abu Bakrin lañ jàll ci kersa ga kersa ga ci jëmmam rek nit xool na ko dugg ci dugg ci islam keroog bañ ko falee daf ni fal ngeen ma de waaye nekkuma ki nga xamante ni may ki leen gën xad wullitu wala subi xayrikum gëm ma leen de kon kooku xam na ne yàlla nga fi teg mais ci maandu gi mu àttee lan la wax mu ni ci ëpp doole ci yéen bu ñëwee fii bu ñëwee fii fekk moo tooñ mu ko jox dëgg de ndax alal googu noonu déedéet ndax yàlla mooy ki gën a woomal te manqué wul dara lépp loo am ba yaakaar ne lii du jeex fekk yàlla li mu denc boo tourné gis loo xam te ne moom loo ko kon yàlla ñu gën a woomal yàlla ñu gën a woomal moo tax ku am ku ñëw ci kanamam am alal ñëw bu lay àtte ci dëgg la lay àtte boo tooñee mun la yaa tooñ bu àtte bi dalee ci moom sax moom Abu Bakarin fekk moo juum danaa maa juum kooku mooy tawaadoo wàccee sa bopp ba tey ci nguur lay wax waaye nee na kii gën a ñàkk bu ñëwee tooñ damay wàccee tooñ bi ci kawam ndax du ma jàpp ni dafa ñàkk moo tax ndax ki ko def ñàkk yàlla kooku mooy ki nga xamante ni moom ma ëpp yërmande man miy àtte kon su amee ak àq ci moom dama koy defee yaa tooñ état ci noonu la ko islam waxee noonu ngay doxee waaye tamit ngir ñu am jàmm ak sécurité bi dëkk bi ndaw ñi am nañ ci wàll ndaw soxlawuñ ko ci lu jug rek nga fajee ko dënn yam sax sax nee na layta shadid bi suran jàmbaar nekk lu wax rek lu ñu nii nii rek nga jug jël ay xeer sànni toj ay nangam def nee na loolu loolu loolu loolu islam reconnaître ko laysa shadid bi suran innama shadid man yamliku nafsahu inda alqadar ki nga xam ne su meree am maîtrise ci boppam kooku mooy ki nga xam ne mooy kii jàmbaar kon jeunesse bu nekk war na dégg lii am conscience bu yow loo mën a nekk di xeex di daw ak dem di ñëw di ko defee dënn islam sant la loolu lépp loo xam te ne jàmm ak dal mënu koo solutionné leneen mënu koo solutionné yal na yàlla defal jàmm waaye tamit bokk na ci li nga xamante ni indi na c'est insécurité ci suñu dëkk réseaux sociaux yi mbokk yi gis nga yàlla daf ni wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu ndukku leen fitna ndax ay du yem ci bopp boroom olof a ko wax bi ko olof di wax ci alxuraan la ko firee la ko jëlee mu ni yow mi nga xamante ni jot nga benn message ci sa whatsapp boo xamante ni lii boo ko tasaaree mu jur fitna nee na boo ko tasaaree ay bu tàkk jàppal ne ci ñàkk a taal nga bokk kon lépp looy transférer di distribuer di partager na nga ko xool bu baax bala nga yee fitna lu dul jur jàmm bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko tasaaree yal na yàlla defal jàmm mbokk yi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne dem na ba benn waaye laaj ko ni ko ayul amal ahabu ila allahi taala ana jëm jëf mooy nga xamante ne moom la yàlla gën a bëgg dem ko wax mooy afshu salaam baynakum bokk na ci wasaare leen jàmm ci seen biir na xale yi wekk mag ñi mag ñi yërëm gone yi bokk yàlla ñu yàlla defal jàmm koor gi ñu génn lépp loo xamante ni nekkoon nañ di ko ci taataan ci yiw yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe suñu njort yàlla ñu yàlla nangul suñu koor suñu dëkk yi yàlla nañ ci yàlla defal jàmm suñu njiitu dëkk yi tàmbalee ko suñu délégué de quartier yàlla na ko yàlla defal jàmm ci yoon ba mu jëm ñun nii di wax ak yéen yàlla nattoo ñoo wax ñaanal leen ba fi ñu jaar muy ci alxuraan ak sunna yàlla buñ ko wàcc bis bu ngeen gisee Mouhamed Diop muy def leneen lu bokk ak sunna bokk la alxuraan ak sunna na ngeen ma ni Mouhamed Diop li ngay def du noonu allahu akbar fa qawimuuni tegaat leen mu ci yoon bi ne lii ngay def du noonu uute nag li yàlla santaane ak yonantam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كل عام ونحن إلى الله أقرب كل عام ونحن إلى الله أقرب كل عام ونحن إلى الله أقرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته